bi 11 heures tegee ñaar fukki minutes pour benn lakk bu am ci biir marché bi juróomi minutes bi mu weesoo donc ñaari engins ñëw nañ donc foofu gis nañ fa fukki cantines yu jàppoon ba pare safara fi mi ngi doon dem euh, penku donc ci loolu nit ñi commencé nañ def extinction bi ba pare ñu demander renfort yeneen engins Nioro Kaffrine Fatick Gossas parce que Kaolack problème bi mu am mooy de un amul hydrant donc foo foo xamante ni engin sapeur pompier war nañ fa mën a branché wu pour am ndox il a fallu que oto yi dem ba Lindiane te Lindiane pratiquement c'est dix kilomètres d'ici donc loolu moo waral sax ñu demander renfort yi. deuxième difficulté bi mooy accessibilité marché bi marché bi ay mbedd yu xat la malheureusement engin yi dañuy taxaw foo xamante ni dafay xaw a sori lakk bi pour mën a intervenir donc loolu yëpp moo waral intervention bi yàgg parce que depuis 23 heures ñoo ngi fi te pratiquement on est à 4 heures du matin. bouche d'incendie yi commune bi amu ko benn moo fi nekkoon moo nekkoon te SGBS malheureusement boobu yàqu na y a deux à trois mois de cela donc on a alerte les autorités maintenant ñu ngi leen di déglu quoi mais y a une nécessité que ñu implanter ay bouche d'incendie d'autant plus que marché Kaolack moom day am lakk-lakk chaque instant depuis trois mois pratiquement am nañ fi ñaari lakk-lakk fii nii biir Kaolack donc j'appelle l'attention des autorités au moins pour ñu mën a installer des bouches fii nii au niveau de la commune am nañu renfort bu jógee ci ñeenti caserne Nioro Kaffrine Gossas ak Fatick donc ñooñu ñoo ñu permettre tout le temps am engin bu nekk sur les lieux pour mën a fay lakk bi parce que li li li ñu jàkkonte woon mooy engin yi dañuy fay ba benn instant ndox bi jeex ñu obligé dem alimenté wu bu ñu demee alimenté wu balaa ñoo ñëwaat safara bi gën a jógaat encore donc loolu moo waraloon ñu demander renfort yi te loolu moo ñu jàppale bu baax ci liggéey bi